mais sant yàlla d'abord. Mm-hmm. parce que xawoon nañu nekk situation bu compliquée. Mm-hmm. je pense que ni bu wootee compte tenu li ñuy dund tey. Mm-hmm. waroon naa tax ñu mën a dem fekki ko. pour des raisons très simples ci réew mi la nekk moom moomul réew mi donte moo ko jiite. te li ñuy wax aussi daf ñuy intéressé du ñu impliqué ñun ñëpp. te nit bu fekkente ni am nga yaqin ni yaa moom sa bopp. ganaaru kenn nanu la foo mën a dem fu nekk nit dalay wax rek nga déglu ko après nga wax mu dégg la la cay génn nag bu fekkee sotti na ci sa bëgg-bëgg nga ni d'accord naa ci bu sottiwulee ci say bëgg-bëgg nga ni lii laa ci d'accord la ca des ànduma ci donc je pense que ni euh, il faut jamais ñu rompre les liens du dialogue am réew daf ci war a téye dina am jamono joo xamee ni condition yi ñuy toll moo koy imposer pratiquement mhm. Mhm. buñ ci demee nag ña cay dem aussi dañ ci war a dem ak benn gis-gis mhm. et loolu di dialogue bu ñu nax suñu bopp aussi parce que la ñu fa yóbbu mooy am jàmm te am jàmm ji équation la boo xamee ni ñaar dañ koo seq bu benn wàll bi toogee bu ñu jàppee ni la ñuy wax ci benn wàll bi mooy indi jàmm ci réew mi c'est qu'on a une courte vue et il faut que lañ fay wax di ko def donte ñee ñëwuñu comme ñun jàmm rek moo ñu intéressé dans li ñuy def ak di ko wax dafa war a yaatu ba englobé ñëpp bu ko defee ñëpp ji si seen bopp. Mm-hmm. et c'est pourquoi maa ngi ànd ak euh, El Hadj ci point yu am solo yi nga xamee ni génn na ko ci dialogue bi. Mm-hmm. mais la ma waxoon démb moom laay waxaat tey jii. ki moo ki yor clé bi tey tey tey tey tey mm-hmm. c'est le président de la République Macky Sall ndax. xam nañu loi yi xam nañu constitution yi cëram moom ala kulli xaal xaw ma kan moo koy salfaañe mais du man nii parce que bëgg naa bu ma ko remplacer kenn du ma gàllankoor comme ni situation yi demee nii. Mhm. et c'est extrêmement important que yenn principe yi de la république ñu maintenir que quel que soit le prix et la difficulté yi nga xamee ni. moom la ñu mhm. nekkee du pour ki fi nekk. mais pour ñiy ñëwi ëllëg ngir ñu mën a am liberté. Mhm. ak sañ-sañ yi àndal pour ñu mën a liggéeyal Sénégal. tey man li may xaar ci président de la république mooy moom mu wane ni que jàmm rek rek rek rek moo ko itteel. nee nañ ko daal caution bi léegi maximum trente millions. su ma doona moom dinaa ne yaa fii ngeen yem man dinaa ko wàccee léegi maximum vingt millions. nga ni ma benn. ñu ne nag léegi nag. Euh, lii di lii di parrainage bi 06 la ñuy wax ba 08. man leen dinaa leen defal lu wàcc daanoo ci gën a gaaw dama leen di indi entre 03 ba 06 ngeen ngeen lijjanti fa seen bopp. Mhm. bu defee nag ñu ne ah da ngeen bëgg a jàmm rek tabaski baa ngi dëgmal te ñun ñëpp bu doon suñu sagoo tabaski si suñu biir kër yi la ñuy fekk. ñi nga xamee ne ay problème politique. moo tax ñu jàpp leen ñoo ñooñu ñëpp dinañu ànd ak juge yi ak justice bi ñu waxtaan ak ñoom pour ñu trouver solution yoo xamee ni mhm. ñoo ñooy dem tabaski gi seen biir kër moo xam bracelet électronique la mhm. moo xam leneen lu mën a doon gis nga ñett ngi yoo xamee ni ci adresse bi muy def ci réew mi bu si ñett ñiy génnee dina restaurer waat confiance bu jéggi dayoo mhm. jëm ci li nga xamee ni Euh, sàkkuteef bi ñuy am. pour mhm. jàmm ju wér ak ji sax ñëw si suñu biir. Mhm. leneen li nga xamee nag moo si des coow lu coow li li muy bare yépp bu xëyoon suba ni moom bokkul ci élection yi Sénégal daal di am jàmm. Mhm. parce que il faut dire les choses exactement boobu mooy. mooy mooy mooy mooy moxtaaru waxtaan. waaw tey jii bu amee sañ-sañu xaar ba dernier jour ba wax dëgg la waaye tey jii. bu ñu rocciloon déggu tànk boobu ñu am. jàmm dañuy daal di am. nit ñi féex. moom mu féex waa këram féex. ñu mën a xëy na waa këram du ñu féex trop. parce que il va falloir que ñoom ñu li ñu lijjanti seen bopp mais li wér ba wóor daal en ah, passé li wér ba wóor mooy suñu genre yi ñoom dinañu féex lool. et et le cas de Sonko. parce que non non fa laa jëm si les deux cas yi fa laa jëm si gis nga fa jëm si. gis nga gis nga loolu aussi bu ñu naxante. bokk na si lii xajamal dialogue ñu dialogué ba pare ñaar ya sa nekkoon am ci ay soxla ak ay itte yu wér ñu lijjanti seeni mbir te lijjanti mbiru xalifa ak mbiru Karim am na solo lool waaye réglewul problème mu jàmm ci biir réew mi te il faut qu'on ait le courage aussi de poser les problèmes exactement comme il se te qui peut le plus peut le moins mm-hmm. lu sowee xalifa sauver Karim si ay décision de justice hmm. war naa sauver keneen ku dul ñoom muy son Sonko ah, et ça c'est ma conviction gis nga gis nga gis nga dafa am yoo xamee ni moom laa doon wax préalable yi ñu war a léegi convoquer si ñun mais comment faire parce que sànq yaa ngi wax waxu justice parce que aussi war nañu mun a régler li ñuy li ñuy régler te duñu entancher li nga xamante ne moom mooy moom mooy l'image de cette de cette justice non moom laa génne comme un premier préalable les institutions de la République moom le président da wax na la forme républicaine de l'État la restauration de l'état de droit des prérogatives de l'état de rassurer les citoyens et d'assurer la sécurité des gens ce n'est pas discutable ce n'est pas négociable xam nga loolu loolu loolu il faut que nit ñi xam ni on a un état et après dafa ñuy survivre et de la crédibilité de cet état la sur le suñu ëllëg dépendre ça ne se négocie pas mu jeex nga féete ko boor leneen li si des nag parce que dañoo woote dialogue parce que dañoo xam ne on est dans une impasse wala on sur le mur. Mm-hmm. moo tax ñu ne ñun nañu nañu nañu waxtaan bu ñu nee nañu waxtaan kañ fa àll kalaj bi nekk dañ koy dut baaraam. lay problème su ñun ñu ton ñu tudd ko te bañ bu ñu naxante on est dans un tout petit pays. Mm-hmm. fi Macky Sall di nelawee ak fi Ousmane Sonko di nelawee. deux kilomètres doxu fa. Mm-hmm. te bu ñu naxantewulee Sénégal gii waxtaan seeg Pa Assane mu wax ak El Hadj Assane mii. Adja as suñu dugal ko ci wala njàpp ñu ne ko raay ci biir nga dugg. ñu waxtaan ci suñu biir trouver ay solution parce que tey jii képp ku ñuy fii évoquer naan la constitution la justice yu demee noonu. xam nga ni da ngay guddal jiil rek. mais la vraie question. mooy il faut que ñu trouver ay ressort yu ñu permettre ñu génn ci jafe-jafe. gii ñu nekk te li ci gën a am solo. te li nga xam ne moom la ñëpp di xaar ci ci ci dialogue bi dëgg la wàllu yeneen domaines yi am na solo wàllu politique bi am na solo mais ci biir politique bi li ci ëpp solo mooy bii inclusivité wu élection yi ñëw transparence u élection yii ñëw ñi bëgg bokk yépp mën cee bokk gis nga yii moom bu ñu ko waxee moom la bu ñu ko waxulee moom la bu ñu ko résoudre mhm. moom la bu ñu ko résoudre it moom la te li ñuy xaar ci président de la république te man ma koy yaakaar si moom mhm. jàpp naa ni je vais être extrêmement et peut-être naïf mais je préfère le rester mhm. j'espère que ni fa ma yaakaar ni daal fa la ñuy génne feem boobu lañu indil teg mooy très mooy moom wax ñu ni moom comme na mu ko junjoon dinañ ko ko ñaan si njekk mhm. na njekkal boppam njekkal ñu njekkal ñu ñun ñëpp <laughs> lijjanti ñu lijjanti boppam lijjanti réew mi jàmm nañu